Khoureychi Khoureychi dafa mel ni woon yow yaa doon gérer euh, sécurité bi de naka la demee woon noonu parce que on a vu que à chaque fois euh, su Ousmane Sonko bu waree tar ci moom rek. Hmm. Khoureychi euh, dafay nekk li nga xam ne moo autour d'Ousmane Sonko en plein cœur de l'action. action foo xam ne kenn du fa xaar sax benn militant mais Khoureychi est toujours présent Moustapha tu peux faire défiler les images en même temps Khoureychi wax ñu carrément rapport am ak ki nga xam ne moo Ousmane Sonko ak tamit. ban jeu la la joué woon si jamono ju euh, métti yooyu. waaye yéen njàpp da ngeen maa nax de. Ah, na nax la ah man ba may ñëw fii moom da ngeen maa nax yii. Khoureychi est là ñun suñu image ñun ñun fii c' est bi 3 xam naa ni image yi moo amul kenn ko am. waaw yéen moom nax ngeen ma nag moom. ça c' fii fii la ah gendarme gendarme yi mënoon pas gendarmerie gendarme yi nga doon waxal. mais Khoureychi fii la woon. waaye yéen. <laughs> man moom gën naa ragalati journaliste nag moom. Régis <laughs> allez-y avec ta modestie. mais non de waaye nag ba may ñëw fii moom tànk yi taxaw ma ñëw fii. ak tay fa ngeen ko génnee tournée bi mu génnee moom. daf ma xaw a da wootal la wootal la ne la non on va parler de l' actualité. waaw moo tax wax ngeen ma ñëwal ñu wax ci bool beeg ñëwal ñu wax ci basket bi. <laughs> Ah, ma ñëw ba fii ngeen changé terrain de basket bi. Mhm, mhm. yóbbu ko ci terrain politique. mais yi nag dafa baax sénégalais xam ko ah. voilà ñu xam carrément parce que ëllëg si biir mun nañu gis xuree si. yenn station ñu naan mais voilà duñu xam voilà. Euh, voilà ñu mën a amee quoi oui. waaw xuree si arrête ta modestie. waaw du question de arrête modestie sax mais xam nga xam nga loo sóorul olof ñaari ma ne lu la bett. mën la mën la. ça c'est encore Khoureychi. waaw déet lu la bett mën la waaw. waaw yéen yéen da ngeen di. profité mais bi bi bi bi bi bi yéen ak waa waa GIGN la. gars yi kële kële ci ginnaaw kan la. yaa ngi indi image yu garaaw. Uh-huh. maa ngi am lan moo xewoon ban la woon. maa ngi am ay maa ngi am ay frisson sax parce que. Ah li fan la woon waaw lii bii nii c'était euh, ñu ngi woon juste bi ñu génnee ci pont bi. Mm fait que bobu non juste ils avaient écarté euh, écarté woon bo xolé ci ginnaaw momo moo nekk mm-hmm. ils avaient écarté le la sécurité du président Ousmane. moy mm. biñ ko jëlé ci auto bi. bo di ko mm. ci seen fourgonnette bi. Mm. donc instant bi moy juste là c'était bon. image fii doon wax ak gars non fii dama casse ci gendarme bi. parce que ah, dafa doon dafa doon. Euh, dafa amoon benn comportement boo xamante ne c'est un comportement boobu ne xaaruñu ko si suñu ay gendarme parce que mm. ñun en tant que citoyen dañu war a am respect si mm. gendarme yi mais gendarmerie yi tam dañu war a am yërmande ci li nga xamante ne mooy citoyen bi mm. il y a une collaboration qui doit exister entre ñi nga xamante ne mooy homme de tenue yi mm-hmm. ak ñi nga xamante ne mooy les citoyens tu vois mais fii j'étais j'étais très très très très pris parce que euh, dañu violenté fii nii ba pare dóor ñu ay gaz lacrymogène soo xoolee gars yi si ginnaaw ñëpp sol masque mais man man moom solo woon masque mm-hmm. parce que man moom instant bi maa yoon si beneen état d' esprit vraiment maa ngi si beneen état d' esprit donc maa ngi doon argumenté fii nii ak gendarme bi boo xoolee juste si ginnaaw am na yeneen ñu nekk foofu mm. benn pool de gendarme la woon mm. dañ ne woon du ñu traversé dem de l' autre côté mais man après dama traversé dem ah, parce que la liberté de l'homme s'arrête là où commence des autres. tu prenais vraiment de risques Kourouchi. même ça, ce tunnel bi Moustapha mën nga défiler. ay Moustapha indil tunnel Il y bi bi Yar Citizen lii la woon. yéen yéen mais fii c'était émouvant c'est-à-dire que j'étais très émotionnel. en termes de fraternité bi nga wax dans le Pastef. parce que fini, euh, Ousseynou était très très très remonté. Mhm. bi ñu Verbe, euh, verre bi bay ba ba Ousmane le président Ousmane Dougolko, donc là il était remonté. et puis bon fini. li amoon réellement moi, euh, gendarme de l'union pour cueillir ko moom. Mm. Ousseynou waaw. ok dañu pour jàpp ko parce que juste de l'autre côté. commande un chef bi. Mhm. mais mhm. allez ne nañ ko cueillir utiliser wala le terme waaw benn terme bu mm. xawa a bu gentil. gis nga fini nii bi ma ko xëccee noonu si la ko jël diko nan naan nañu déllu ma fi dama ko don wax ni exactement fi ma kay wax ni manko nan on a besoin de toi dehors. Mm. on ne peut pas avoir tout le monde en prison. fi loolu la ko don wax. fekk bobu ndessan il était très remonté. Mm. mais bobu l'a kay maanaam le président Ousmane a besoin de nous dehors. il n'a pas besoin de nous à l'intérieur des cellules. fekk boobu mi ngi bëgg dem jàmmaarloo de l'autre côté di xaru mm-hmm. xataraayu quoi waaw mais boobu fekk na xëccoo naa fii nii parce que beneen image bi jiitu boobu dafa dama xëcc dama xëccoo woon ak gendarme bi ba xëcc ko moo tax sama loxo gis nga moo tax sama loxo jàlloon noonu si ko tam te dama téye woon ni dama tëjoon nii sama loxo ceinture ko pour bañ mu mm-hmm. génn mu dem waaw bugguma woon gars yi arrêté ko donc euh, parce que dama jàpp ni moom sama frère là et puis. ou c'est nous non mais parce que tout passé on est tous des frères. oui on est tous des frères. Mm. d'où le mot fraternité. Mm. loolu lay am et man sama rôle moo doon assurer wu ni euh, bu ñu arrêté kenn waaye bu ñu arrêté ñu bari bu arrêté surtout nak ñu mel ni dañ leen soxla donc amuñu on droit déjà boobu ñu ngi jàpp président Ousmane. Mm-hmm. xamuñu fuñ ko koy mm. papa ñu bëgg jàpp ñeneen ñi bu boobaa kan mooy wëyal. c'est compliqué. voilà donc mais c'était waaw fii fii j'étais fii boo xoolee oto bi oto GIGN bi la. Mm. bii moo jiitu juste si convoi bi yóbbu le président. Mm-hmm. donc ma dem taxaw si kanamu oto bi nag fekk juste nag boobu maa ngi tourné de l'autre côté di film action bi parce que maa ngi doon xool oto bi bi ñuy dugal président Ousmane parce que bi juste nii ci côté bi foofu la ñu doon dugalee président. yow yow bi ñu toj bi kii bi vitre fa la mais là est ce que nekkutoon si procès Mame Mbaye Niang bi. Khoureychi euh, ah, bi procès Mame Niang bi la. Mm-hmm. ok bi ñu koy bi ñu koy génnee boobu maa ngi taxaw si oto bi. Mm. boo xoolee si gis nga maa ngi noonu taxaw si kaw. boobu jéem nañ ma wàccee ba sonn ba <laughs> gendarme bi ko ñëw dóor ma cross. Hmm? sama ndigg bi eh. maa ngi ah am émotier.

C'était extraordinaire. Mais Rouréji, mmh. euh, je vais vous laisser commenter. Mais man, à part la, les gendarmes, man, avec euh, sécurité Ousmane, voilà, là, c'est les gendarmes. Il y aurait que la 10 euh, civile, Sibirtunali. Euh, nous, sécurité, sont les civils. Nous, nous, sécurité, bi avec le président Ousmane. Voilà. Ok. Ouais, mais civili, waouh. <laughs> Gis nga, euh, oh, Ndiap, oui. c'est extraordinaire. Ça m'a yaram bangi daw parce que. Mm-hmm. Gis nga fini. -hmm. Hmm. fii lu graaw la parce que balaa lii di am nii. Hmm. Hmm. daf oto bi dafa taxawoon ci kaw. parce que boobu président dafa ne woon dañuy jaar ci kaw. Mhm. ñoom ñu bloqué police jël otoom seen fourgonne di bloqué. yoon bi ñu waroon jaar ba pare ñu dañuy imposer ñu dugg ci biir tunnel bi jaaree fa pour génn. te xamuñu lan moo nekkoon ci tunnel bi. ok kon gars yi lu ñu doon wax dëgg la quoi li tunnel bi dañ leen fi bëggoon jaarloo. saa yi tunnel bi hmm. yal na yàlla dool sutura rek mais tunnel bii moom dafa doyoon waar parce que gis nga fii nii. Hmm. mais Roy je sens de l'émotion si sa voix bi vraiment vraiment parce que waaw man man ku ma xam xam ne c'est un sportif de haut niveau man du may sax émotionnel nii mais hmm. fii lu tax mu mu touché ma. oui c'est parce que man bugguma tooñ quoi bugguma mm. injustice. Mm. Mm. te man fu ma gis injustice rek faaw sama deret yëngu quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. mais fii dama ne woon ñaaree am bu fekkee dañuy rey président Ousmane yàlla naa si jiitu. Oh. demoon nga ba toll foofu si engagement bi. waaw moo tax bi nga génnee lii sama ma. waaw mu mu touché ma quoi parce que fii bi ñuy dugg li am réellement mooy dama daw. dugg si biir gis nga policier bi ñu ci kaw dugg ci biir oh. amul benn policier engagement dugg mi ngi donc c'était vraiment dangereux ils mm. avaient refusé de rentrer te dama dem ba avant ñuy wax nañu dugg dama dem ba si mm. policier chef ki nga doon vous ne pouvez pas nous imposer yoon mm. d'autant plus que ñun pare nañ procès ñun on rentrait chez nous en paix avec nos militants. xool leen ñoom ñëpp ñu ngi ni ci kaw ma ngi non ci su gis nga. Mm-hmm. fini ma ngi leen di wax yeen mm-hmm. gis nga gis nga sama loxo yi. fii dama leen doon wax yeen wacc leen. Mm-hmm. ñom gendarme policier yi dama leen wax nañu wacc pour sécuriser. président Ousmane. parce que ñoom ñoo parce que ñom ñoo ñëw ne. président Ousmane du jaar ci ko gis nga lima la wax dañoo rangale won seen ay auto pour bañ ñu jaar foofu. léegi nag ñu ne chef police bi mu ñëw mu ne. Euh, il faut que auto président jaar ci souf man ma dem ba ci mom engagement ni dem ci hmm. voilà mais je fan ngeen de photo yi. <laughs> ah <laughs> Il 3 ah. ko non c'est extraordinaire oh là là image yi de ñu ko jox euh, boo ko de. <laughs> te bu ko kenn laaj. te bu ko Moustapha ces images def si euh, kii T3B image moom suñ ko oh <laughs> gis nga mhm. j'étais remonté boo xoolee gis nga. gis nga ki mhm. yoroon lu marron li. oui kooku laa parole bi directement. ma mhm. vous ne pouvez pas nous imposer fu jaar. ma ne dara il faut respecter la liberté de l'homme Mhm. le président Ousmane na procès ñu ngi ñëw ak ay militants mhm. mais yéen am leen sax xanaa ormaw ngeen bàyyi ko mu mais ngeen di topp nit pour toroxal ko. Mm. doon wax mu ñëw on a li euh, nañu nañu disperser mm. parce que dama taxaw dama ko assister lii dama man mm. bougé ma. gis nga waa ji ma mais bi bu ma dama chargé mané ko le président Ousmane Sonko du bouger auto bi di dem fenn tant que yéen jëloo leen responsabilité ngeen dugg ci tunnel bi. jiitu mm-hmm. ñu topp leen bu ko défé lépp luy responsabilité yeen ngeen jiitu ko ngeen jël ko bu ko défé lu ci mëna am ñu xamni ni a décidé ni dañuy jaar fo par force. Mm-hmm. fi lola leen doon wax. waji nak ki nga ki après dafa mujj énervé mu ñëw né ma vous êtes qui? mané ko vous êtes qui? fii. Mm-hmm. mu ñëw né ma vous êtes qui? mané ko vous êtes qui? <laughs> parce que non parce que là j'étais remonté mais vous êtes qui? moi je suis un citoyen qui défend les causes nobles de la droiture parce que moi engage je suis un citoyen qui mm. défend les causes nobles mm. pour la droiture et je n'aime pas l'injustice et mënoo leen jël le président Ousmane Sonko ngeen di ko alors que yéen doo un jël engagement Qu'est-ce après après fini, nous sommes est nous concerté wu ñu mer nous mm. concerté wu man sama bopp man duggal sama bopp ci tunnel bi. mooy ah, mooy danger si toi tu savais même pas looy fekk si tunnel bi. image bi ñu gis sànq. Ousmane Sonko man. Mm. ñoom bi ñu di planifier man si ne bon fii bu fi toogee di gis nga foule xoola foule bi fi mu y' a plus amatul kenn du dul sécurité wu président Ousmane moo ak foule bi gis nga ni ñu dispersé foule bi yóbbu leen fële alors que foule bi dañu ëmboon. Mm. la voiture du président di saafonte ak mom mm. est-ce que yaa comprend ñu tass leen ba yóbbu de l'autre côté bloqué leen léegi bëgg président Ousmane Sonko mom ci ndum mu jaar ci tunnel bi. mais jamono était état d'esprit Ousmane Sonko ou bien amutoon sa possibilité. de communiquer le président Ousmane est un. Ah. <laughs> non góor yàlla dëgg la macha allah. Sonko non non non non gis nga li ñuy wax euh, self control. Mm-hmm. mooy président self control dëgg macha allah gis nga boobu noonu bi mm. man daw bon il va falloir que quelqu'un prenne ses responsabilités. Mm-hmm. ma xool oto bi xool gendarme Je mm. bon ma xool tunnel bi ma ne ma dem. Ah. bu dara di am man naa mm-hmm ci la daw dugg ci tunnel bi ba tunnel bi jeex tak ma dawat yek bi ma dawee yéeg nag si laa dem si ñom ma légui chef police bi da ngay jital sa oto mm-hmm. nga jitu bala le président di jall di ñëw top mais c'était yi mom li c'est exceptionnel finalement noo leen mais li ma leen wax lañ def parce que la voiture n'a pas bougé bougéwul mm-hmm. fi auto bi taxaw fa la tegu mm-hmm la tegu police bi dama ko ne ba ne bi président tu prends l'engagement mm-hmm. ni dara du xew et ça s'est pas passé de la manière dont il l'a dit mm-hmm. loolu mo ma si parce que si on gis nga ba génn juste ci lumière mm-hmm. ci la gars chargé d'or lacrymogène ba ñu ba ci la ki nga euh, Ibrahima Fall le photographe de patriote euh, ma koy nuyu au passage même di ko ziare bu a il a un travail exceptionnel mm. Mon le petit frère am décédé si on bi bi ñoom président Ousmane doon def euh, tournée voilà bokk na ci décédé et depuis lors il a pris l'engagement et la relève de continuer à nga xamante mooy di et loolu c'est à saluer et c'est euh, c'est un acte de don de soi mm. mais c'est un acte de patriotisme aussi bobu ci la lacrymogène bi ñu door dugg ci si parce que bi mu doon si dugg ci bi mu lacrymogène ñu ko c'était destiné à rentrer en dessous de la voiture du président ok ci suuf ko a far bi mu juste rek ko hmm? hmm. explosé ci kawam Oh. Bien sûr. Et il a, il a, il a, il a souffert. Ah ouais. comme un journaliste, il a investigué, il a gagné son photo. après, il faut que nous fassions Il investigation. Parce que Ibrahim Fall. Frère photographe. Oh là là, il a. tu ça il bah, n'y a pas de souci, je, vous donne son compte, ses contacts, Inch'Allah. Tu, coordonnes, pas, donner contact, tu coordonnes. Voilà. Parce y a des gens qui ont ramené euh, Bougoun exposé oh, aussi. Mais mon, mon, vraiment, il,

attention même euh, parce que mm-hmm. c'est une autorité la gendarmerie. Mm. la police c'est une autorité je ne les défie pas mais c'était un droit. que je mm. revendiquais en tant que citoyen le respect parce que li ngay yow. Mm-hmm. gendarmerie def. Mm. Terrain ma corrigez moi wala ma corriger droit boo da nga ko war a respecté boo ko empiété dama si war a taxaw mm-hmm. mooy la liberté d'abord na ngay def injustice ba pare di jàppale ñii di def injustice c'était pas normal mm-hmm. man bi may dem engouement bi ma demee dama yàqin rek laa demee dama xam ni lii dëgg la te dama koy xeex parce que dëgg la mm-hmm. même bu ma ciy weet dëgg la mais gis nga projet passé xam nga la moo tax mu garaaw ëmb la boo xam ne boo ko feccee lu ne nga ciy fekk mais au-delà du projet Pasteur Moussa qui Khoureychi. non xaaral njàpp dama ko bëgg wax dafa am solo. parce que gis nga projet bi kenn ku ci nekk da nga ci def. oui. kenn ku ci nekk am nga mérite. parce que gis nga lii la vraie révolution du Sénégal. c'était ça. révolution dëgg bu ñuy wax dans l'histoire bu ñu war a jàngal suñuy njaboot ëllëg. bii dañ ko war a parce que gis nga on a subi énormément d'injustice. c'est sûr te gis nga 100 francs pour participer ci nemmeeku tour wala participer ci campagne électorale qui di joxe temps qui di joxe xam-xamam kii di joxe alalam kii di joxe mën-mënam kii di joxe li nga xamante yow loolu nga am. Mm. constitué li nga xamante ne mooy ku ci ci ni nga mënee ci ni nga toll pour que ñu tout à fait donc lii nii nekkul rek lu tëb tëb rek wadd hmm. dafa nekk loo xamante ne say la tout à fait. Pour euh, une question, il y a le projet certes, mais aussi, euh, nous avons engagé aussi, euh, comme il y a une certaine proximité, euh, affinité avec, euh, le président, je dis toujours le président Ousmane Sonko. c'est une habitude. c'est le président Ousmane Sonko, parce que c'est le, président du parti passif. <laughs> <laughs> Monsieur Ousmane Sonko. Mhm. Monsieur Ousmane Sonko, il y est ce rapport entre et Ousmane Sonko Là, vraiment, bolé à Ousmane Sonko parce que vous xam aussi NBA euh, euh, vous gagnez des millions et des millions là-bas nga bàyyi loolu yëpp nga engagé wu ces euh, projets boo ça. Ça sax sa on a fait, nous on a fait des. écoutez gis nga. oui correct. fii. lii nit ak nit loolu yalla. Mhm. on ne choisit pas ses amis. oui on les choisit mais on ne les choisit pas. parce que mm. hasard amul. nit d'ailleurs, c'est ci sa dund rek. Mm.

le président Ousmane Sonko fa nek ki nga xamante nit la bo xamante hmm ñepp la bokkal tout le monde. moy hmm. président wu parti bi ba paré c'est est hmm. normal mo war ko hmm. xam. sans parce que dama engagé aussi parti bi. donc c'est normal ma xamni ni moy suñu leader. mais nga koy top diko déglu diko wax man bok, suma né xam moy man pour man li nga teg sa bët xam. après rapprochement wala après relation loolu yëpp c' est c' est pas important. parce que loolu yàlla moo koy def. ni ngay bokk ak nit mën ngeen di bokk di liggéey te doo leen rapport doo leen doo leen am benn affinité. Mm-hmm. Mm-hmm. donc man loolu dama jàpp ne loolu yàlla la. Mm-hmm. mais li ëpp solo mooy samedi mag laa seetaan euh, benn journée. boobu mi wax mais après li muy wax nii solo la. boobu nag ba léegi laa doon gëstu di ko topp nag. di intéressé wu di intéressé wu saa yu demee émission may topp di xool di topp di xool di déglu li muy wax après à la suite j'ai senti que ni loolu rek doyul. Hmm. parce que li mu doon woote dama xam ni il aura besoin des sénégalais ñu ñëw jàpp ci li nga xam ne mooy projet bi man ma gis sama bopp ci projet bi ma gis sama bopp ci li nga xamante ne loolu la ñuy woote. Hmm. de par le biais de. Euh, honorable Aïcha Touré. Aïcha Touré, mm. député diaspora, mm. euh, issu des États-Unis. Mm. Si mom la jaré pour Doug, directement, euh, si Pastef, on a waxtaan lu yàgg ñu échanger lu bari mu ma tamit lu bari si projet bi ni doré et tout et mm. tout et c'est là où je me suis réellement c'est-à-dire engagé directement c'est parti bi. Mm. et depuis lors. Non, l'a di engagé woo ba engagé ou si li nga au niveau de là où j'habite dans le Texas et dans le West Side yëpp a mm. la engagé et progressivement la relation s'est fait fluide c'est-à-dire j'ai pas cherché à connaître le président Ousmane ce oui. honnêtement dès ma di qui su kii ka non moi mais dès di il y a le def ni projet bi mu indi amour man bima am si projet bi mm-hmm. ba tay mu indi sama relation mm projet bi ak c'est mon frère je le regarde mm. comme un grand frère. Euh, mais bien sûr c'est un frère la. mais bi mu faloo ba léegi ban Ousmane accessible wala léegi ngeen ko jot premier ministre ba la nga boobu moom rek dama quand je suis en championnat su may joué. jot ni c'est parce que you know mm. dama nek en off season. mais su nek en saison. damay soxla concentration dama temps bi da fay you know. Mm. te ñom dañu nekk si liggéey. Mm-hmm. su ma ko bëggee gis dinaa ko gis incha allah. su ma bëggee gis moom xam na ma dama gis loolu amul problème on n'a pas de problème ay. Mm. et puis instant bii nii dafa am lu lu ëpp relation boobu xam nga mooy lan. Mm-hmm. Sénégal. dafa am projet bu ñu ànd di ko xeex di ko xeex di ko xeex jaay ko Sénégalais yi ba yàlla may ñu si ndam. <laughs> ñu ngi siy xaar te moom yàlla def mu jox ko ci pàcc bu am solo muy le chef du gouvernement. <laughs> donc jotam buñ koy jotale nañ ko jotale ci liggéey gi parce que foofu mm-hmm. lañ koy xaar. Euh, le réalisateur Moustapha, c'est euh, mm-hmm. surprise, Bataille, je vais une vidéo pour nous proposé. Moustapha, vous nous proposez quoi, Bataille, euh, par rapport à Khoreshi et son engagement oh, voilà fi yarga mm. yarga si moo nekk non à côté. Mm. ok euh, tu peux commenter en même temps l'image pour waaw fii fii mooy c'est extraordinaire. oui waaw bi moom bi mooy première attaque gis nga bo leen gisee. Mm. man may photo non. ok photo bi ngeen gis muy sol kagul bi. man ma jëlone photo bi Dugo ko sama page ñu jëlat ko reproduire ko. ok waaw ñu dispatcher ko parce que fini, c'était un message bu muy joxé. parce que fi lañ ñu attaquer won juste bi ñuy ñëw boo xoolee à côté ni TFM mo nekk fofu hmm. donc fi lañu doré dóoree lacrymogène bi euh, pour disperser la foule. gis nga mm-hmm. mais bob mom mi ngi def ni geste bi ni nan nañu dem. genre mm-hmm. allons-y quoi nañu mm-hmm. dem. mais bi maa ngi ko don immortaliser parce que bëgguma won ñu attaquer ko wala dara dal ko te duñu am preuve. parce que jamono bi dafa nekkoon jamono boo xamante ne. lépp looy wax. Mm. walla lépp looy def boo amul preuve dafay jafe. Mm. pour nga pour nga mën a défendre cause boobu moo tax automatiquement bi ma gisee kii bi rek boo xoolee sama téléphone laa génne automatiquement commencé immortaliser la mm. l' événement mm. donc xoola ndeke man bi may immortaliser am na ku may immortaliser moom it <laughs> macha non mais mais bii c' extraordinaire parce que gis nga fii bi mu génnee ba sol kagul bi oh là là bi mu mm. solee kagul bi fii nii extraordinaire parce que c'était un message bu mu jàllale la, résistance continue. Exactement. ça c'est Ousmane Sango en kagoulé en la. Ah. image image lacrymogène bi. ci la sol bi mm. mais gis nga bi dee wax nañu nañu dem. guerrier Ousmane. Ah, Ousmane dégg mu waxandakal boppam.

fukki dërëm. mais Khoureychi nit ñi bëgg kon ko fay fukki dërëm. tu tu veux pas parler euh, peut-être euh, dafa am euh, pudeur wax xaalis euh, <laughs> dafa. ba tey ba tey jàpp jàpp foofu foofu bëgg sax noonu bëgg sax ba tey léegi léegi léegi waa affaire xaalis dafa garaaw dafa am benen incident bu amone ci campagne bi. waaw ñu ne convoi ñum Khoureychi bi arrêté nañ ko lan mo xewoon concrètement bi. waaw. waaw bobu xam nga convoi bi bobu dañ ko arrêté parce que raison mhm. x y z. Mhm. waxuñu ñu ko.

sécurité yi waxuñu ñu lu tax waxuñu ñu dara waxuñu ñu raison bi tax ñu arrêté leen donc mais bon man boobu li ma def mooy garder sama humilité garder suma calme xamoon ne na ni instant boobu booy mer nañ seen yaram tàng na mais li ma leen wax mooy nañu dal arrêté garde corps ça ne veut rien dire ñun dañuy continuer suñu liggéey parce que ci liggéey la ñu nekk bu ñu paree ñun dinañ dem xool lan mooy raison bi mais bobu bëgguma woon ñu arrêté suñu liggéey parce que ñu ngi nekkoon ci liggéey bu am solo di dem di dugg ci zone yi di waxtaan ak li nga xamante ne mooy population bi te même ci jour boobu tamit amoon na euh, ñu doon wax ni convoi wu beneen boor bi hmm. yeneen opposition à l'opposition <laughs> dañu waroon dem ci zone boobu et bon c'est pas grave de toute hmm. façon terewuñ ñoo eggali suñu liggéey hmm. dem nañu dugg nañ Ngor et après plus tard on les a relâchés Mm-hmm. et bàyyi mujj nañ bàyyi garde yeeg yooyu donc euh, ñu ngi. benn benn incident bu fa amoon la rek quoi dakaar bu ñu ko tuddoon ci campagne bu Khoureychi la ñuy wax bu ñu ko tuddee rek Khoureychi la ñuy wax dafa mel ni dakaar yow kese yaa fi nekkoon parce que am na ay li leen leaderu Pastef ak yooyu ñu wax mais élection présidentielle yi da nga ciy da nga da nga ci génn bu baax a baax a baax ba yow lañ doon gis ci porte à porte ci caravane yeeg yu yu yu nu mel ak yooyu lan moo waraloon loolu. waaw gis nga ci kaw loolu sax da ngeen may may. Mm-hmm. ma encore une fois me remercier qui nga xamantene moy suñu coordonnateur d'abord abord muy Thierno Aliou coordinateur ou coordonnateur maire Sacré-Cœur bi nga xamné man fofu la bok mm-hmm. euh muy suñu coordonnateur mais en même temps ki nga xamantene moy coordinateur coordonnateur Dakar bi mm-hmm. Abbas Fall mm-hmm. euh, ñu ngi koy nuyu de passage et Nam comme li nga wax sama tour peut-être génn na si waaw def nañ ci liggéey waaw mais Dakar ñu bëri liggéey nañu nekkul munoo ne yow rek yaa liggéey. Hmm. loolu c'est pas du loolu mooy li nga xamante ne loolu moo moom laa mën a wax hmm. déedéet zone bu nekk amoon na ñu fay liggéey li ñu def mooy def nañu liggéey nag boo xamante ne macha allah you know dem nañ ci coordination yi dem nañ ci euh, nu mu tudd ci communes yi. jàppale dooleel ñi nga xamante moy mooy yi nekkoon sur place mais tamit saafonte ak population bi fa nekk. Mm. style biñ ñu ko bokul bokkul programme bi ñu tegoon bokkul trajectoire yi ñu tegoon bokkul ak ñeneen ñi mais ça a pas dire que on a été plus méritant que les autres. Mm. ñeneen ñi kenn ku ci nekk liggéey nga ci ni nga mënee ci ni nga amé ci ni nga xamé mais ñun tamit def nañu ben travail bo ça a été planifié ak équipe. mais mais li tax ma xoolal Khoureychi moy Dakar c'était un défi. particulier je peux dire. Mm-hmm. parce que maire bi yoro len ko. Mm-hmm. Euh, barté mako yor ñom ñu len di borom Dakaru est-ce que da nga non li bataille la boo il faut ñu wane présidentiel présidentielle ñun ñoo fi évidemment parce que kenn ku ci nek da nga am euh, challenge boy démé mm-hmm. c'est-à-dire lepp li ngay def da ngay am. lan mo tax ngay def li ngay def. man pour man dama né ok dafa am lo xamante euh élégance politique mooy tax sax doo egg fenn fi wax li parce que mën nañu wute gis-gis nañu xalaat nañu euh, euh, engagement mais ñu respectante ci li nga bokk waaw am ku ne Dakar ñu na euh, diaspora bi bi nga ne mm-hmm. il ne représente rien d'autre que 4 de la population de de la population qui vote c'est-à-dire ñi nga maintenant si taux de vote bi impact de parce que 4 règle waouh mais 4 yoy, nous répercuté 18 millions de Sénégalais parce que bon des ci foyer ou nekk di nga fa fekk kenn immigré la issu de la diaspora xëy na étape la manqué le donc ci kaw taxawaay nous nous ñu en tant que militants euh, du PASTEF am na taxawaay ci wara am pour amener un répondant hmm. et c'est ça la politique hmm. C'est ça la politique répondant la répondant buñu am la bo xamantene dañ ko defoon ñun suñu sacerdoce personnel ñu né par exemple li nga xamantene fi ñu jëm si euh, si élection bi war na passé war na am ben taxaway ben xar karam boo xamante bu am solo la hmm. donc loolu ñun ñu xaar ci suñu tànk am ci benn taxawaay boo xamante ne pour ñu mën a participer ci li nga xamante ne mooy concrétiser laki Dakar. Mhm. parce que borom Dakar dëgg-dëgg mooy le président Ousmane Sonko. parce que tey ay militants ay frères am wane nañ encore une fois que ni Dakar c'est le président Ousmane Sonko. Mhm. moom moo fi teg tànk. te loolu lañ doon concrétiser waat ànd ceeg. Mhm. Euh, patriotes yi. Mm-hmm. ànd ceeg coordination yi nekkoon Dakar ànd ceeg ñi nga xamante ne mooy coordonnateur de commune yi pour ñu mm-hmm. jëmmal loolu acté loolu. finalement Barthélémy Dias boobu nañu waaw loolu du man maa koy décider parce que <laughs> moom moo décidé woon ni moom mooy boroom Dakaaru ñun ñu won ko ni rek ni dakaar ki ko ki ko ki nga xamante ne moo la dimbali ci kàttanu suñu borom ba jàppale la ba nga falu ci dakaar mm-hmm, kooku la ñuy delloowaat caabi Dakar yi. Mhm. parce que moom mooy borom Dakar muy le président Ousmane. ok euh, Moustapha euh, euh, vraiment des révélations ak li nga xam ne mun wax découverte aussi euh, par par rapport ak le profil de l'homme ak engagement bi nga xam sax euh, am ko si euh, parti Pastef peut-être peut-être ñu bëri de l'ondis gis Khoureychi juste Khoureychi ni jàpp carrément dafa bokk si ñi nga xam ne dañoo rek wàll si yaan si si bile projet mais je pense que beaucoup, na si quelques rares personnes yi nga xam backen. Euh, mënoon na euh, des euh, si projet bi nga comme nous mu expliqué. et mhm. gagner des millions foofu le si États-Unis bu fekkoon sama genre la moom dañuy voilà mais lui il est modeste il veut pas en parler. moi je vais en parler ça il faut être vraiment vraiment. you <laughs> ah, hein? de soi. pour la patrie. oui ni ni parce que le président Ousmane Sonko a tout donné. Mm-hmm. Hmm. pour le Sénégal tout. à la limite il est arrivé au seuil de sa dignité. Mm-hmm. et de sa vie. Mm-hmm. parce qu'il a frôlé la mort. Hmm. c'est vrai. Il n'y a pas plus fort. Son image ternie, même. Donc, quand vous me parlez d'engagement de Khureshi, pour moi, mm. ce n'est rien du tout. Mm. Parce que Khureshi, il y en a d'autres. Mais des Khureshi à leur niveau. Donc, quelqu'un qui est là, qui qui donc, ce fait que le président Ousmane Sonko, président du parti passif, mm-hmm. a tout donné aujourd'hui pour que nous aboutir à ce que nous concrétiser par euh, projet il va falloir que nous les militants nous les sénégalais. Mhm. qu'on puisse donner tout pour lui pour que moumena euh, concrétiser donc mhm. man de dama encore une fois remercier encore. Mm. tous les tous les sénégalais mais plus particulièrement mm. la jeunesse sénégalaise. un mm-hmm. engagement ak taxaw bi nga Nenko, taxaw projet parce que Taïdi, c'est un engagement ak seen mm. détermination moo waral tey fii ñu egsi nii ñu mën fee egsi tey ndax ku déglu kii nga xamante ne mooy euh, ci prestation de serment ba mm-hmm. ki nga xamante ne mooy euh, Badio Camara bi muy wax am na benn parti boo xam ne lim ci wax man ci sama dégg-dégg laa wax mm-hmm. waxuma keneen de man si sama dégg-dégg mooy bu ñu xeexul woon tey mm-hmm. jàmmarloo ak ñii xeex li nga xamante ne mooy dëgg rek teel a tax système B pour nous dire mais dina l'ol parce que un troisième mandat serait même validé parce que ci wax ci c'est comme si wax le président Macky Sall avait à droit de droit def troisième mandat mais il a renoncé il n'a pas renoncé mm-hmm. le président Macky Sall n'a pas renoncé au troisième mandat mm-hmm. nous lui avons imposé de par notre engagement de notre par de par notre am euh, abnégation won ko ni fi do fi def 3e mandat parce que dañ ko fi téré mhm. té bëgguñu ko et on s'est battu cause am, légalement pour pouvoir acter li nga xamante moy le refus et le rejet d'un hold-up pour un troisième mandat. Merci beaucoup, Khoreshi, euh, pour euh, témoigner que euh, vraiment, moi, je pense que c'est une